waaw di am mbégte rek euh, chaque jour dañuy wax rek sur AS Sport maa ngi fi toujours rek ci terrain jamono maa ngi ak euh, le capitaine équipe bu jamono bi ñu koy wax Cheikh Tidiane Fall di Pocho maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay nuyu Asmao di rafet li ñëw bi ngeen ñëw fii di leen dalal ak jàmm waaw. waaw mbégte la rek comme li ñuy wax rek comme émission bi ñuy wax rek sur AS Sport.

ndax euh, boo xoolee ci suñu préparation yi ak euh, match amicaux yu ñu jotee am lépp du ma ne dafa parfait à 100 pour cent wala dafa positif au total mais gis nañ ci benn travail bu bu bu baax boo xamante ne mën nañu apporter si suñu match bu ñu jëm. ñaan yàlla nag bu fekkente ne que moom mooy maye te dara tawu ko mu defal ñu ndam ndax liggéey nañu taxawee nañ noo xamante ne ne mérité nañu am ndam boobu waaw mérité ngeen pour am ndam bobu parce que gis nañ tamit euh, équipe bi am ay renfort ci lepp gis nañ parce que gis nañ un nouveau président ñu koy wax euh, muy Elhadji Hadji Ibrahima Diop muy promoteur u làmb ba paré nek président encore jamono té ñi lan nga ma mën wax ci lolu ba mom mention spéciale à lui hein, parce que tamit euh, il a été supporter il a été dirigeant fi ci AIC bi topp na équipe bi depuis jeune âge am bu mu xalé ba numu mu toll ni ba yalla num ko suturaalee dimbali ko tek ko fim ko tek mu ñew né nak sama euh amna reconnaissance envers euh, sama quartier dama leen jital and ak ñom bokkandoo ak ñom lépp xatiando dorando ba yalla may ñu ndam waaw. loolu rafet la tay jii nii dernière question bi rek mom moy tay ban ambition tay jii nii la jamono am ci saison 2022 2023. ah saison 2022 2023 du lenn lu dul dem rek jëli coupe bi. waaw fighting xàccandoo dorandoo ñëpp parce que boo xoolee cité 1 2 3 ñëpp ñu ngi jàppandoo di ñëw di teew si entraînement yi di ñu dooleel nekk suñu ginnaaw président bi aussi il met le paquet pour ñu jël ndam parce que loolu rek moo ñu fi dese man mii di wax ak yow final naa fi final waat fi dem fi ay te chaque jour difficulté bi ñuy am mooy duñ dem ba final duñ comprendre di ñaan yàlla nag mu yem foofu 2022 2023 bii nii lépp ñu ciy xaar ci loo xamante ni ndam la rek ñun ñu am ko suñu objectif nag du jël zonal dañ bëgg a dem jël régional. Euh, Inch'Allah. On a l'équipe et on a les hommes qu'il faut, franchement. Merci, capitaine. Merci beaucoup. <laughs>